kenn tëggaaliwul ki mu doon kooku mooy Ababacar mbër mi kenn dëkkaaliwul ki mu doon kooku mooy Ababacar xalifa man bay na samaawaat ki mu doon kooku mooy Ababacar xalifa man bay na al arde ki mu doon kooku mooy Ababacar dongu Mawdo andi Cheikh soga dem kooku mooy Ababacar ka ca barzaq tey jëflante ba ma kooku mooy Ababacar ka ca ba tey ma sàggan ci Babacar. ana ñi bëgg sëñ Babacar Si. bu nu sàggan ci Babacar. ana so في الحاج منصور بنو سجن تشيفا بكر انا صفي الحاج عبد بنو سجن تشيفا بكر انا صفي الحاج حبيب سي بنو سجن تشيفا بكر انا صفي سيرين منصور بنو سجن تشيفا بكر انا صفي سيرين شيخ تيجان بنو سجن تشيفا بكر انا صفي سيرين عبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رضوان الله تعالى على الصحابة دعوة لكبارنا الأجلاء بوكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بوكي السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi leen di nuyoo fii ci yësi mu bokk ci commune Ngay ci arrondissement Ndaam département bu Mbacké région de Diourbel ñu ànd ak yéen ci Bawal TV ci benn xew-xew bu fi am muy benn ziar bu ñuy defal benn muqaddam bu maam Cheikhul Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ñu di ko wax Serigne Ahmadul Amin Fall ziar bi nag maam Abdoul Aziz Dabakh radiallahu taala anhu moo ko joxoon way jur ya su ma dem way jur ya mooy njabootu maam Lamine Fall tàmbulee ci Baye Moustapha Fall Serigne Alxaaji Malick Fall ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Fall ak Serigne Abdoul Aziz Fall Pape Mansour moom yàlla dafa dogal bi ñuy def ziar bi fekk ko fi tey bi nag benn sëtam bu ñuy wax Serigne Mansour Fall moo fi nekk wuutu ko fi di xalifaam ngeen gis ñu nii nag ñu toog ak ay wëllëre yoo xam ne wëllëre yi sëriñ alxaaji lañu woon ak mag ñëpp di waa Dakar waaye nag tàgge bu ne am na jàppal diw ki ngeen gis ñu toogal di sëriñ Alioune Badara Sy di doom ci maam alxaaji Abdul Aziz radiallahu taala anhu bi nga xam ne moo joxe woon ndigal ci ñu def bés bi ak euh, sëriñ Mansour Dieng bu ma ko waxee ak aima yi fi teew yëpp ñu jóge ba Dakar ñoom itam kóllëre tënke woon leen lëkkale leen ak Serigne Alxaaji ak njabootu maam Lamine ngir bañ a guddal ki ñuy defal ziar bi mi ngi gane àdduna fu ñuy wax naawel ci pegg Mbirkilaan yàllaa ngi dogalit mi ngi gane àdduna vers 1886 la ganee àdduna ca naawel bi mu ganee àdduna itam dem bay am juróom-ñaari at way juram wu góor génn àdduna ñu di ko wax maam Maxtaar Aada Jaañ way juram woowu nag bi muy génn àdduna bàyyi na fi rakkam bu mu bokkal ndey ak baay bu ñuy wax maam ma Silla Faal ak yaayi maam Lamin muy maam may mun a jéey yàlla dogal nag baayam bu ndaw bi ñuy wax maam ma Silla Faal yëg ne seeni mbokk ñëw nañ bayti paaleen bayti paaleen itam soriwul fii nga xam ne mooy yées yi nga xam ne fi lañ toog di fi defee waxtaan wi. ah ak station bi li ko tax a jóg mooy lii ànd defar yées yi mooy lii ah am nañu yéene tamit suqali suñu dëkk macha allah ba képp ku nga xamante ne bii tey xamoo woon fu yées yi nekk ah, nga xam ko ba ëllëg ci si biir lépp lu nga xamante ne bii tey moom la xale yi bëgg muy ànd defar yées yi ah am nañu yéene daal yóbbu suñu dëkk fu nga xamante ne bii daal bu kawe suñu njort te néew nañ ci doole tamit nag. ñun li nga xamante ni bii daal ñooy ndaw yi képp autorité nekk rek ñu ngi lay jox suñu kàddu di la jox suñu loxo ah di la sàkku suñu ndimbal ci suñu dëkk bi ndax li nga xamante ni bii tey suñu siyaare bi tey mu ngi ci li nga xamante ni bii tey moo ñu gën a sooxe ñu wàllu ndox te xam nga ne ndox mooy defar gis te bu ñu sañoon tey képp koo xamante ne bii tey dégg nga ko muy autorisation yi autorité yi nga xamante ne bii tey ñoom ñoo ñu féete ci kaw kenn ku ci nekk fa nga nekk bu ñu lay fekk fa nga nekk di la jooy ndimbal ca loola nga jàppale ñu si bu ñu ko fekkee te siyaare bi ñëw ah fu waaye mën a jógee te dimbalee ñu loola ñu am ca lu kawe suñu jort loolu passé na ñu ngi sant gone yi bu baax kenn ku ci nekk sa Pastef gis nañu ko gannaaw bi ñu santee sëriñ bi siyaare ndax li lépp moom la tax seen barke maam lañ koy def tey muy maamu Lamine Fall mi tëdd gone yi nag wax dëgg yàlla amuñu leen luñ leen wax waxal sant leen gërëm leen ndax mbir mi nga xamante fi ne kawe na suñu jort macha allah am nañu yéene nag lu ëpp lii waaye yéen li nga xamante ne bi yéen a teew ngir àggale bis bi fi nga xamante ne bi tey suñu loxo suñu loxo àggu fa suñu xel suñu bët àggu fa waaye ñu leen di ñaanal yàlla ca kaw ca kanam incha allah bu at bi déwénee di ngeen di ñëw fekk lépp mat ah yéen ñiy ñëwit yàlla ngeen am lu kawe seen jot seen ab liggéey ba léegi ci sibiree bu ñu leen yësi ngeen sawar ci lool macha allah Take a चितल आहे मोमाल जेको ci tollu wayam ci leer joxal ñuko sallallahu alayhi wa sallam mu joxal ñuko suñu mam muhammadul Amin Fall ak suñu mam yu bax ya nga xamne ni ñom ñep ño andendo won di liggéey ci benn war benn war bo benn tol bo xamne benn war rek fa am muy tolu la ilaha illa allah war wa di muhammadu rasulullah yàlla ni ñu yàlla boole ak ñom te ñu bari ci jamono tay boole gogulen yàlla boole kilifa yoon ñu jàppe ko ak tedd nga fekk na nattub yàlla la yàlla nañu yàlla booleek ñoom ci ruux ba nga xam ne lépp bépp leer buy rogalaat ci seen ruux yi yàlla bu mu romb suñu ruux yi kon ñaan googu ñu bokk jàngandoo ko ñaanal suñu kilifa yi ñu jiitu jéem ñi fi desandi yàlla gën leen fi yàggal gën leen kattanal yéene ji ngeen am tañ bokk koog yéen ci yësi gii ca mbar ak gox yépp Bye-bye. di goxu yàlla yàlla may ñu kattanu ndimbal ba lépp ñu mën koo def defin boo xam ne luy gërëmu fa yàlla la tey ak ëllëg ci barke sayyiduna muhammad wa ma zalika ala allahi bi aziz ba tax na dañuy gàttal nuyoo bi ni ko sunu baay bi daan waxe ñoo ngi nuyu ñi fi dëkk ak ñi fi dikk jiital ak ñi topp ci gannaawam borom dëkk gannaawam bi jeex tund bi jeex commencé programme bi nag comme ni ñu ko baaxoo daan defee bëgg ko commencé ci ayatul quraniya ayatul quraniya yooyu nag ki ñu bëgg mu jàngal ñu ko mooy Cheikh Ahmed Tidiane Abdoul Aziz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 sëriñ bi Seydi Mouhamadul Mansour ñi ngi lay nuyu di la wàcc sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla yal na yàlla yàggal taxawaay bi nga yàgg koo jiite ñu yàgg koo teewe yow ak njabootu maam Ahmadul Amin gi yëpp ñu ngi nuyu si suñu maam ji Seydi Aliou Niang ñaan yàlla aussi yàlla na ko fi yàlla yàggal mu yàgg koo teewe ñu yàgg ko teewe incha allah kaddu yi nag kaddu cant ak ngërëm ginnaaw ba ñuy nuyoo suñu papa Serigne Khady Dieye di chef du village nuyu al imam nuyu mboolem waa Yeesi Serigne bi ñi nga lay xamal ne ziyaara ren bii day nit ci ndaw ñi sooboo musul maa gis nuñ ko ci sooboo ni ni mel parce que depuis mois de décembre. ci lañ commencé woon di jàng ay kaamilu alquran ba semaine bee pensé ci lañ ko clôturer ñi ngi ko konte ci 36 kaamil muy fanweeri kaamil ak juróom jàng nañ ko ci alquran karim ngir teeree ko bis bi donc loolu yaakaar naa ne lu màgg la te ndaw yi rek ñoom ñoo ko amal ci taxawaayu oustaz Alioune Niang ak taxawaayu imam Babacar Niang def nañ ci aussi ay dox ci salaatul fatihi ci suratul yaasin ci istixfaar lim yu takkoo takkoo takk ngir yàlla seral bés bi ngir yàlla jàmmal réew mi yokku naataange ci gox bi waaye wéral cëri yokku am am bi donc ñi ngi leen ci sant di leen ci gërëm cant gi nag mënul paase waa Yéesi tey bu ñëwee waa Yéesi ñëpp dugg nañ ku fi dëkk ci yi nga bokk ku fi dikk ci yi nga bokk ñoo ngi nuyu ci turu borom dëkk bi muy bàyyi Serigne Khady Dieye ñu ngi dalal gan ñi mbooleem ku fi dëkk yàlla mi nga xam ne mooy defar tawfiix yàlla ko yàlla wéeral aw yaramam ak képp ku mu maase Baye Serigne nee na bis bi kontaan nañ mi ngi sant mboolem autorité yi fi ñëw mi ngi sant mboolem fu waay bàyyi ko ci gox yi ñëw bi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw nee na yëf yi xolam seet na ci guy yàlla na yàlla dafa leen topp sunu kilifa sunu wayjur imaam alhaaji Aliou Niang nee na mi ngi di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sayyid Mouhamadul Mansour Fall mi nga xam ne moom la yàlla def tey mu jiite njabootu Sayyid Mouhamadul Amin Fall ak nag mbooleem ñi nga xam ne moo ñoo bokk bés bi di ci teg ki nga xam ne moom la yàlla dénk dëkk bi ci jamono yi nu toll muy nijaay Serigne Khady Dieye ak ñi ko ci jàppale ñépp ak waa dëkk bi di ci teg imaamu ratib bi imaam Mbay Ndaw ak mboolem ñu koy jàppale ci wàllu jàkk ji ak jumaa ji ñu ngi leen di nuyu yéen di leen ziyaara di leen balu xaq di leen baxal di tàllal loxo subhanahu ku ñaan jotaay bi buñ fi def yàlla na ko nangu ñi ngi waxee ci kàddu imaam Babacar Ndaw dafa wax ne dafa am ngànt ay wax na ne mi ngi nuyu mbooleem ku fi teew ngay góor jigéen mag ak ndaw waaye mën a jóge jël nuyoo boobu nag ak siyaar bi yépp tàmbalee ko ci boroom dëkk bi nga xam ne moo dalal gan bi noppi teg ci sëriñ bi nga xam ne tabaarakallaahu moom la yàlla dogal tey mu toog ci kanam mbooloo mi muy sëriñ Mouhamadul Mansour Fall ayyadahu llaahu wa nasara boobaa làmmiñ loraange rekk la lay jural yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax ne saxaaba bu ñuy wax abu saïd alxidri yi moo ko nettali nee na يوم ما صرف البقية سلام من ودي وقت كريب نل الرجل لن يلا كمان نخسون باخي تي جو سما بس بلب بي با واي سونجين تنجي سما بس بلب بي لولو موتخ يلا جلان من دوغل كبير فانويري بنا ak ñaar tëj jël tuñ tëj mi gise te waxtaan mënu ne noo fi mënu ne Sayyiduna Abubakar Siddiq bu masaan di ñëw ci pénc mi xeer lay sex ci gémmiñam ngir bañoo ngir bañoo maam Cheikhul Xaaji Malik bu ko xaal masaana ñëwal baaraamab déem bi lay téye sex ko di ko mat ba muy dagg ndax bañoo Serigne Babacar Sy mi ngeen gis ci photoom yi muy def nii looloo ko waraloon bañ a wax naka su du noona suñu làmmiñ yi nañ ko wat bëri na yowmal qiyaam ku dem safara moo la fa yóbbu doomu aadama bu nekk war naa bàyyi xel làmmiñam jamono boo xamee ne boo waxee tasam réew war ngaa téye saw làmmiñ mooy koy dénk ne ko sa làmmiñ wi téye ko sa làmmiñ wi téye ko te Maodo Baye Alxaaji Mansour dem na ba wax ne sudul woon jom ak kersa dootuma ubbi sama gémmiñ di wax ak nit lawlal muru atu uxtu diini man basata su dul woon am naa lu may seet dootuma ubbi sama gémmiñ di wax ak nit ndax nit ñu seytaan nit ñu mën yàq mu ne nag kuffal lisaana téyel sa lammiñ waaye la làmmiñ woo xam ne boo xëyee ba jant so mboolem la nga cay wax lu bon la luy yàq la luy tàqale la xanaa nga tegal ma sa baaraam foofu rek ba ma yegg si fii lamiñ moomu nag boo xëyee ba kero jant di so lépp loo xam ne soo ko waxee du am njariñ téye ci sa lamiñ bi ma ciy njëkk a indi mooy yàlla nee na amul wenn xaraf amul baat booy génne ci sa lamiñ wi te amul malaayika mu koy bind ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق يلا نانا سلام مني أم الباب بوتي جنة بو لا ولا بو با تدو ملائكة بن يلا وخار نوني نيت كوني بلا مو واخ لمي واخ نكو خار ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سنو لمن يبن في جوجي لنو باي خل بنتي وحنا دون لبا su doonee safaan nañu la yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ku gëm ne yàlla am na gëm ne bis penc am na loo waxoon danañ la ko tegal waxal lu baax te nga noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moomu nag neen ci xadis bu Abu Hurayra génne ku yàlla dimbale ba ci li si diggante sa ñaari tuñ yi muy lammi ak sa diggante ñaari tànk yi muy sam pëy ku yàlla dimbale ba wattul la ko mën ngaa dem aljanna waaw ku boole ñaari yi yow doo noppi doo toog doo noppi doo toog kii ñu bari ci ñun yawmal qiyaam danañ am problème ndax moom. koo gis ma nga téye di audio te la muy wax lu ca bari amul njariñ nañ ci wax lu baax def ci lu baax te teg ko benn waay dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam Serigne Mansour ne ko man dama bëgg a mucc nan laay def ba mucc mu ne ko ñaar laay dé laa lay dégg bu njëkk bi téyel ma sa làmmiñ wi بلن بي توغل سكر امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك واي يو سي نياو تيف دوكو خول نياو تيف جامور غاي خول te doo yem ci xool ko waaye danga koy wax ak sa lamiñ te yonent bi bi ko laa yone waa ji nan laay def ba al dem aljanna mu ne ko téyel ma sa lamiñ te nga toog sa kër te nga yittewoo sa ayi bi bopp te nga bàyyi nii Muaas ibnu Jabal nee na dama ñëw ci yonent bi ne ko lii dugal nit aljanna lu ci gën a gaaw te di la soril safara mu ne ko teel ma sa soo bëggee dem aljanna mu ne ah, mu ne ko teel ma sa lammiñ muaas ne ko waaw li ñuy wax lépp ëllëg dañuy fekk yàlla jàppe ñu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko xanaa xamuloo ne ña dem safara ñépp ña ci ëpp seenu lammiñ moo leen fa yóbbu kon nañu wattandiku lammiñ yi nañu wattandiku lammiñ yi lammiñ dang cay jàng alquran wala nga wax ca lu baax wala nga nopp يونت بي دافا صحابي اك نلن جو بوكنا سي لي تخ نيت دم صفا موم جو ما جيل نك لي امام شيخ الحاج مالك اندي سي بير زجر القلوب غا خمنا تاي واخنا على سمعه مثل الرياء وغيبه وغيبه وني توتي الحمد لله رب العالمين نانا ميغي جولي سيدنا محمد سلمان صلى الله عليه وسلم نانا كناو لولو مبوكي نانا ميغي لين دي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نانا ميغي نان يالا kaw ak ñun ñëpp ak fu mboolem mi ngi santaat bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin Yeah, no, no, no. yàlla boole nañu ñun ñii fi teew ci ñi nga xam ne teewoon nañ ko daaw ñi ko teewul itam ak yaafus wala ragal yóbbu leen ñun ñi nga xam ne ñoo fi desandi ak njàmbaar ak bëri pexe taxuñu fee toog kon lépp luy am ci coobar yàlla rek lay amee. nee na mu ngi ñaan mbokk yëpp kenn ku nekk na def gannaaw fatiha fukki lexlaas ak benn ak juróom ñaari inaan salnaawu ak benn salaat fatihi ñu fàttaliku sunu rak sunu xarit fa tabaarakallaahu Sëriñ Babacar Fall nga xam ne tabaarakallaahu alaaji Mansour mii nga xam moo doon def conférence bu daan toog di ko fekke da ngay xool ci kanamam gis ni kii mi ngi kontaan mi ngi bëgg mi ngi kontaan ci sëriñ Mansour bu baax a a baax ba tabaarakallaahu ñaan googu ñaanal ko ko ak mboolem way dawe jullit yépp nag ak yi tëdd ci suuf yësi bii kii yàlla la yéen ngeen jubalee ñëpp jub su ngeen baaxalee yiwal ñëpp tegu ci yoon ñëpp yiw ndax kat kàddu yàlla bokk ngeen ci ñi koy jottalil tereb yàlla tam bokk ngeen ci ñi ko mën a ba mu àgg ci ñëpp kon jóg gi tax ngeen jóg ñëw ba fii mi ngi wone ne yéen a ci yoon mi ngi ñaan Baol TV yàlla yokk leen yokk goo xam ne ni télévision yu mag yi tasaaroo nga xam ne dugal nañ leen satellite yëpp fu nit mën a nekk ci àdduna surtout Sénégal mën a dugg ci câble wala satellite fekk fa seen chaîne bi jàpp leen ne yàlla ngeen seen tund ngeen di liggéeyal seen ëtt ngeen di liggéeyal bu leen nangu nag yàlla tinki leen dama koy faral di wax yàlla warul tinki nit ba noppi muy sàggan bañ tënkaat ko xeet wi ku leen di jariñ xamal ne yaa ngi ci service yàlla xam ngeen ne lii fi jibe su génnee ñi ko doon doonlu te doonu dinañ xam ne fii marché du nekk jotaay macha allah ah ñu ngi leen sant baax di leen gërëm seen teewaay ah ñu ngi rafetlu bu baax li ci jot jàll ndax affaire yi macha allah rafet na ñu ngi am yéene ci biir ñaanal leen seen télévision bi jàll jëm ci kanam. yor cër ak dogal ami sañ-sañ ci diine te yënguwul moo kooku may Ababakar yor cër ak dogal ami zañ zañ ci diine te yënguwul ma. kooku mooy Ababacar. mbër mi kenn tëggalewul ki mu doon ma. kooku mooy Ababacar. mbër mi kenn tëggalewul ki mu doon ma. kooku mooy Ababacar. mbër mi kenn dëkkalewul ki mu doon ma. kooku mooy Ababacar. Khalifa man bay na sama waat ki mu doon ma. kooku mooy.